ce qui a fait mal c'est vraiment euh, li mu def France vingt 24 parce que Sonko dafa def sorti bu am solo France 24 France 24 euh, fan yëpp leader Sénégal yu bëri ñu fay jaar euh, président Macky Sall jaar na fa Aïssata Tall Sall jaar na fa Khalifa Sall jaar na fa ak ñeneen ak ñeneen ak pays sous région bi leader yu bëri jaar nañ fa mais li metti nguur gi ba tax ñu génnee sax ab communiqué. Euh, à travers le ministre de la communication ñu génn ab communiqué boo xam saan boo ko liiree dangay am gàcce xam ne ñii nag wax dëgg yàlla li tubaab naan ils son en train de jeter leurs dernières armes loolu moo leen dal ñu taxaw di ŋàññi France 24 naan li mu def tëgg ko fenn et cetera et alors que aujourd'hui li leen metti waxuñu ko la leen metti mooy Ousmane Sonko dafa def dafa def interview France 24 matul sax. Euh, vingt 24 heures mu def un million de vues tey bi ma ko seetee parce que tey je je je je si suis amusé à regarder le nombre de vues mooy la guerre des vues xam nga guerre des vues bi sax ma am na ku ma dégg mu wax ci lu important nee na di tëkkale Ousmane Sonko ñeneen ñi sax yàpp Ousmane Sonko la il la raison parce que tamit euh, pompe terre ak Angleterre bokkuñu maanaam di leen tëkkale boo koy def day mel ne yow da ngaa bëgg a wàññi doole Ousmane Sonko il la raison. mais comme ñoom dugg nañ ci guerre des chiffres bi c'est bien que ñu wax grève de guerre des chiffres bi lu mu lu parce que nombre de vues bi Ousmane Sonko def daf leen a déranger parce que koo xam ne booy def direct tout de suite mën nga am personne personnes 40000 personnes yu lay seetaan soo dajalee sax sa plateforme yëpp da ngay dem ay 100000 personnes yu lay seetaan kooku yombul kooku leader bu ko am en Afrique man jàpp naa ne presque amu fi leader bu am loolu ci Afrique yombul waaw léegi xëy na Thomas Sankara bu doon ba muy dund. xarala yi àggoon na fii moom mënoon na ko am mais actuellement Ousmane sonk la ko la yàlla def mu am ko mais na nit ñi nangu dogalu yàlla gis nga man suma sañoon muy man mais loolu la yàlla dogal kum kum kum kum nekkul yow mu muñal rek te tàpp tàppal ko ne ko Ousmane félicitation sénégalais yow lañ bëgg yow la diaspora bi bëgg yow la africain yi bëgg parce que Ousmane Sonko suy wax du sénégalais yi kese koy seetaan diaspora africaine bi dañ koy seetaan. mais les pays de la sous-région dañuy scotché ci seeni i téléphone di seetaan son Sonko loolu yàlla moo ko may tey bi ma xoolee statistiques yi parce que la guerre des chiffres euh, day déranger ñenn ñi sur le plan du nombre de vues maa ngi ni tey à 17h19 dama xool euh, statistiques yi ci ñoom ñi nga xam ni fan yi dem nañ France 24 mu defal leen interview. ma xool ni Sonko mi ngi ci un million six cent soixante et un mille sept cent trente six vues un million six cent soixante et un mille sept cent trente six vues kooku am na ci leader yi yu xëccoo fii Sénégal yoo xam ne bañ dalee defi émission ba léegi ci dix ans dix ans laa leen wax de buñ dajalee émission yi def yëpp ci télé yëpp ci plateforme yëpp yëpp buñ ko boolee Instagram YouTube. Facebook lépp buñ ko boolee mun ñoo am deux cent mille wala mun ñoo am mil cent mille te nee nañ candidat la ci élection présidentielle Sénégal Ousmane Sonko def ele def def interview France 24 ci cinq jours parce que li may joxe nii cinq jours la parce que tey ci 17 dix 19 laa dem xool ku ci nekk nombre de vues bi nga am fu mu toll Ousmane Sonko mi ngi ci un million six cent soixante et un mille sept cent trente six vues Khalifa Sall mi ngi toll ci cent sept mille huit cent huit ay Aïssata Tall Sall mi ngi toll ci 177 383 vues Macky Sall moom dama ko jëlal sax ci un an un an moom un an pendant un an ñi ko seetaan ci France 24 ab émission bi mu def France 24 un an mi ngi ci cent mille 126 871 vues bu ñu jëlee nag discours am bi ñu teg le 4 juillet mooy discours bi mu def noonu ñu teg ko. boobu mi ngi ci quatre cent un mille euh, douze vues quatre cent un mille douze vues foofu la toll au moment où Sonko yaa un million six cent soixante et un mille cent trente six vues waaw loolu xam nga lu mu signifie mooy nit ñi seen Sonko lan jox nopp mais loolu dogalu yàlla la bu leen ci mer ngir yàlla laa xayti mulaana bu leen ci mer nangu leen dogalu yàlla xam ne loolu la yàlla dogal comme sañoon ku sañoon muy yow man su ma sañoon muy man su ma sañoon sénégalais yi man la ñuy topp su ma sañoon loolu yàlla defal ma ko parce que ku ci nekk nag woote man nag contre ma sonko waaye sama bopp ma gënal sonko nañu waxante dëgg nag xam naa nag te mbooy sonko yi commencé wax non sonko non mais attention man sama bopp ma gënal sonko su ma sañoon lii mu am am ko su ma sañoon man la sénégalais yi di seetaan man la sénégalais yi di topp su ma sañoon man la sénégalais yi di tatagal su ma sañoon bu ma defee interview am un million de vues mais loolu aw ma ko moom sonko am na ko même fii par ailleurs man nag yeneen gars yi ci topp nii ëppale wuñ may view de man su ma nekkoon candidat j'ai dit que candidat yi déclaré wu yëpp su ma nekkoon candidat kenn duma ci raw te sama ñàkk sama nekk candidat sax weesagul parce que damaa amul rek damaa amagul caution 30 millions yi ñu wax parce que dégg naa 30 millions la ñu waxati 30 millions nag wax dëgg yàlla ëpp ma ko mais su ma amoon 30 millions damay nekk candidat comme ñëpp te bu ma nekkee candidat comme ñëpp man fii li ma gëm mooy à part. kii raw dès le premier tour muy Ousmane Sonko parce que dès le premier tour lay raw loolu la sondage yi wax loolu la yàlla dogal loolu même koo contre xam nga ni dëgg la boo xoolee sénégalais yi ak diaspora bi ak niñ taxawoo Ousmane Sonko xam ne bu ñu demee élection midi bu ñu tëjoon bu ñu arrêté woon élection bi midi maanaam ñu ñu ni ubbi nañ urne yi huit heures ñuy voté huit heures neuf heures dix heures onze heures ba midi bu midi jotee ñu ne Ousmane Sonko sax moom ay euh, ay ay bulletin arrêté nañ ñeneen ñi nañ continuer voté bu ñuy bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wàññee xob yi mm. Ousmane Sonko koy raw loolu mooy dëgg Ousmane Sonko bu ñu dee voté huit heures ba midi midi jot ñu ni non Ousmane Sonko bàcc yi metti na yow jëratul ñuy joxe say bulletin léegi say bulletin kenn dootu ko jëlati nañ jël yeneen bulletin yi bu ñu dee jël yeneen bulletin yi ba 18 ñu tëj urne nii bu ñu ko tëjee bu ñu wàññee xob yi Ousmane Sonko koy gañe loolu mooy dëgg léegi nag loolu nga wax ko même ku la ci na la mere mais loolu mooy dëgg à part Ousmane Sonko ak candidat bi nga moom la nguur gi sam parce que candidat nguur gi bon comme nguur gi mooy yore appareil d'état bi euh, tappalekat yenn yi naan xam naa ne man daañ tasaaroo parce que ñoom ñoom mun ñoo am benn candidat kese daañ tasaaroo parce que am na ñoo xam ne duñ jaaroog taal am na ñoo xam duñ topp ci ñeneen ñi man xam naa ne moom mun ñoo fexe ba am benn candidat moom à moins que ñu utiliser parrainage parce que foofu rek lañ dese ñoom nguur gi pour éliminer seen candidat bi nga xam ni seen candidat yu ko mën a jaarale pour wàññi ko mais suñ ay candidats yu bari lañ nar a parce que parrainage moom ay tappale la man nag maa ngi wax toujours euh, candidats yi ni leen xeexu leen parrainage bi am na sax ñu ci dem ca dialogue ba d' accord ci parrainage bi te xamuñ ña ngay d' accord seen musiba ci parrainage bi la Macky Sall di jaar pour wàññi candidats yi parce que candidats yu bari arrangé wul nguur gi bu candidats yu baree nguur gi am jafe-jafe ki nga xam ne nag moo ëpp doole moom yoonum nekku ci candidats yu bari yi au contraire yu bari yee donc parce que loolu mooy logique bi ki ëpp doole ci opposition bi candidature yu bari yi moo ko arrangé waaye ki nga xam ne moo yore nguur gi candidature yu néew yi moo ko arrangé c'est ça la logique loolu moo tax ñi nga xam dem nañ ca dialogue ba te ay candidat wuyaa wuyaa lañ ñoom dañoo xamul seen bopp xam nañ ni ñoom gasal nañ seen bopp kàmb nguur gi day jaare ci parrainage pour éliminer leen yéen parce que ña ca des ut na porox ndoll pour ñoom yan porox ndoll la ut pour ñoom parce que nee na leen ku ci am treize députés à l'Assemblée nationale yu la parrainé mën nga nekk candidat loolu nag comme nax nañ Ousmane Sonko ba ami député ku ci mel ne waa PDS nax nañ Ousmane Sonko ba am député parce que Ousmane sonk su àndul woon ak PDS PDS du am 13 député bu amul woon système bootante PDS mënta am su amul woon système bootante Khalifa Sall mënta am 13 député lool laa gëm mu neex leen mu naqari leen je sais que daañu ma attaqué mais man ragal ma ko ma attaqué man ko may attaqué attaqué ma ci dëgg. lii mooy dëgg ñooñu kon wut nañ ay prox ndoll pour ñoom mais yéen yeneen candidat yi nga xam ne amu leen ay député ci parrainage leen Macky sal nar a éliminé parce que élection bi kenn la candidature am leeragul kenn kenn la candidature am leeragul donc loolu moo tax ma leen di xamal ni yéen ñooñu bu ngeen yaakaaree ni rëcc ngeen rëccagu leen te même bu ngeen rëccoon man jàpp naa ne suñ ma bàyyoon ma nekk candidat euh, wala ma am moyen yu ma nekkee candidat yéen ñooñu ñëpp kenn mënu ma cee raw à part mag euh, à part kii jël P nga xam dès le premier tour day gagné muy Ousmane Sonko ak kii jël deux certainement ci nguur gi lay bokk parce que ñoom comme ison la l' appareil d' état mën nañoo am ay voix yu mat ay 30 pour cent ki 25 pour cent ki yooyu mën nañoo jël deuxième. maintenant yeneen candidats yi man su ma ca bokkee euh, kenn mënu maa raw euh, bu ma demee nag ba xam ni mënu maa bokk ma nangu rek xam ne loolu la yàlla dogal mais. bu ma amee 30 million comme ñëpp laay damay bokk ci pëccëxoo bi maanaam pëccëxoo bi ab pëccëxoo la rek ku nekk rek candidat la man dama ciy bokk rek pour la forme mais kii gagné ñëpp xam nañ ko candidat bi gagné ñëpp xam nañ ko bu ñu demee élection Ousmane Sonko mooy gagné loolu sénégalais boo waxal ci roq bi mën la dëgg la lii mooy dëgg xam nga loolu wax ko tamit mooy wax dëgg rek man loolu laa wax rek waxuma leneen mais bokk ci élection présidentielle du rek ciy bokk pour gagné da ciy bokk pour am say idée yoo bëgg a jàllale. man bëgg naa bokk ci élection yi parce que j'ai des idées ma bëgg a jàllale yoo xam ne damaa bëgg ci campagne bi ñu may jox sama temps d'antenne ma ciy wax parce que loolu rek jaral na ma su ma amoon 30 millions xëpp ko ci même si leer na ma ne su ma demee tamit du ma gañe waaye nag du ma fa nekk candidat wu yaa wu yaa de du ma jël ndaare de su ma bokkee du ma jël ndaare gaa gaa yi di lay layee ko cëpp cëpp yëpp ñu ci ëpp ci ñoom maa leen di raw mais nag du ma gañe loolu moom muy dëgg mais dina ma jox une tribune pour que thème yi ma bëgg a wax ci réew ak li ma neexul ci réew mi ak réforme yi ma bëgg ci réew mi ma wax ko pour kii gañe bu gañee mu man mu man mu mën a def réforme yooyu parce que sénégalais yi daan ne lii daam boo wax baax na kon looloo tax man ma sañoon bokk waaye nag aw ma 30 millions gis naa nag mon ami si Sy lancé na cagnotte pour gars yi jàppale ko mu nekk candidat moom man nag c'est moo ami mon ami Siré Sy chroniqueur mais mon ami Siré Sy yàlla na ko yàlla euh, defal ba mu am 30 million yi mais Siré Macky Sall ci parrainage bi la lay éliminé Macky Sall Macky Sall du d'accord nga bokk Macky moom li ma leer mooy parrainage bi la lay éliminé leer na man nag mën ngaa ami parrain parce que sénégalais yi respecté nañ la parce que ah, vraiment sa taxawaay euh, sénégalais yi rafetlu nañ ko parce que réew moom euh, du ay turu rëy am turu rëy parti parti bu rëy taxul nga nga am fi doole fii ki fi am doole mooy kii ki sénégalais yi dugal ci seen xol léegi nag ñooñu dañoo ëppante doole ñi sénégalais yi dugal seen xol dañoo ëppante doole kon nag yow si Sy maa ngi lay ñaanal nga matal sa 30 millions pour mën bokk ci élection yi incha allah maintenant nag li nga xam ne moo am mooy euh, le 15 juillet euh, waa PASTEF dañoo euh, lancé li ñuy tuddee investiture Ousmane Sonko ñu ne ñoom dañuy tabb seen candidat mooy Ousmane Sonko mooy seen candidat comme ni ñu ko yàgg a waxee ñoom nee nañ amuñu plan A ak B ak C Z yëpp Ousmane la maanaam. amuñu benn alternative bu ñuy jéem a teg ay plan B ki plan C amuñu ko ñoom li nu am mooy Ousmane Sonko mooy seen candidat te kenn mënu koo teenee nekk candidat léegi nag dañuy def cérémonie boo xam ne fa lañ koy fale seen candidat maanaam investiture bi ñu ngi koy def le 15 juillet ah euh, fii ci géejawaay euh, ci estatu géejawaay bi foofu lañ koy defee ah man jàpp naa ni loolu lu ama am solo la kon nag euh, na ko ñëpp rafetlu Ousmane Sonko nag ci information may jot nee na day dem mais am na droit dem man jàpp naa ne nguur gi bu bëgg la andi benn fitna day bàyyi Ousmane Sonko dem parce que ba instant bi même bu ñu ko doon toppee dara lañ koy toppee amagul ce qu'on ce n'est pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée maanaam amul benn dossier bu ñu koy topp boo xam ni jeex na tàkk amagul amagul benn dossier bu ñu koy topp boo am jeex na tàkk loolu la loolu la tubaab di wax dossier boo xam si yegg na ba ca euh, cappaandaw ba. maanaam yegg na ba àtte nañ ko ba sës na ba cour de cassation lépp àddu ci ba kenn mënatu cee def benn appel dossier boo xam amatul appel loolu amul benn daan buñ ci daanagul Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko ba suñ joon yàlla tey il reste libre et il reste candidat à la présidentielle de 2024 ku nekk candidat nag am nga droit def investiture kon nañ bàyyi doomu jàmbur mu dem ca rassemblement ba ñuy def ca géejawaay ah bu ko defee euh, moom mu nekk Euh, événement boo xam si événement bu rëy la pour képp koo xam ne candidat nga kon nag euh, loolu mooy dëgg bu ñu ko bàyyiwul mu dem mën naa yee fitna te fitna musiba la comme ni ko Souleymane Ndéné Ndiaye wax ci waxam ni def élection boo xam si Ousmane Sonko du ci bokk mën naa indi fitna Sénégal te loolu sax de wutewul ak li Oustaz Assane Seck bu Sen TV wax parce que Oustaz Assane dama koy fàtte yenn saa yi mais mi ngi ci kaso bi ci jaay doole te Oustaz Assane Seck waxu dara lu élection bu Ousmane Sonko dul bokk day yee fitna fii Sénégal walla mën na fi yee fitna Sénégal mais loolu euh, Souleymane Ndéné Ndiaye wax euh, bërki démb ci benn émission de la place donc loolu mooy dëgg parce que nañu waxante dëgg rek loolu wax ko mais bëgg moo tax nga koy wax képp ku ne Ousmane Sonko bu ñu ko jéemee tere mu nekk candidat 2024 mën naa yee fitna Sénégal mais ñooñu koy wax jàmm lañ bëgg kon ku bëgg jàmm da ngay fexe ba sénégalais yi nga may leen parce que ki nga xam ni bu defee léegi ab émission am un million de vues ki nga xam ne bu mu génnee ci mbedd mi mu am embouteillage ki nga xam ne moom bu nee day wax képp kuy wax kenn du la déglu képp ki nga xam ne moom tey jii ku doon def conférence de presse bu ñu la nee Sonko da nga day wax da nga naan non bàyyil ma bàyyi ba mu wax ba pare moom mu leer ni sénégalais yi moom lañ bëgg sénégalais yi dëkk fii ci réew mi ak yi nekk au niveau de la diaspora ñëpp Ousmane Sonko lañu bëgg kon nag comme ñëpp ñi ñoo nekk ici au Sénégal et en dehors du pays ñoom ñëpp dañoo bëgg Ousmane Sonko kon nga tere Ousmane Sonko mu nekk candidat kon yee fitna la senegal kon nañ ko bàyyi mu def investiture am jóge këram cité kër góor gi dem ca euh, fa ñuy defee investiture bi à Guédiawaye bu ñu jógee foofa ñu bàyyi ko ay nitam gunge ko ba ba mu delluwaat këram ci jàmm bu ko defee jàmm ne ñooy ba noppi ñëpp ñiy pousse état bi pour ñu dem jàpp Ousmane sonk ñu bañ a dugg ci loolu parce que jàpp Ousmane Sonko. lim mën a jur ci réew mi musiba la te man maa ngi rafet lu également ci wax ci li nga xam ne moom la général Moussa Fall wax parce que général Moussa Fall wax li wax dafa rafet parce que général Moussa Fall dafa moom toppul li ñoom Aïssata Tall Sall ak yeneen tappalekat yi yu APR yi naan dafa am ay force occulte moom waxul loolu parce que ay force occulte ñoo ñëw Sénégal ak et cetera déedéet parce que Moussa Fall nag ak niveau bi mu nekk bu taxawee ak ses ñu def ab lël fii ci Ndakaaru mu taxaw wax jeneen wax bu boobaa dina métti Sénégalais yi mais heureusement il a fait un discours de haute facture discours bu mag la def te discours bu li mu ci wax mooy ñun nin daan gérer sécurité askan wi dafa soppeeku askan wi dañoo soppi nin daan xeexe kon askan wi ci boppam ñoo xeex kon général Moussa Fall moom ci li mu wax nee na du ay force occulte ay sénégalais ñoo taxaw di xeex mais nin nin daan leen gérer moo soppeeku kon ñoom tamit war na ñoo soppeeku macha allah. général loolu nga wax nag dëggal ko loolu mooy dëgg sénégalais yi ñoo soppee ñoo soppeeku ci ni nee daan xeexe parce que léegi danoo am beneen taxawaay y a un changement de paradigme loolu nga wax noonu changement de paradigme boobu nga wax yow général Moussa Fall wax ni kon léegi nit ñi ñoo soppeeku ci par rapport ak ni ñu leen daan gérer dañoo am beneen gis-gis bu ñu am loolu nag loolu dafa wane ni kon nit ñi danoo am beneen taxawaay pour seeni réew démocratie dafa am yeneen exigence yu mu am aujourd'hui askan wi ñoo jëlaat li ñu moom loolu nga wax yow général Moussa Fall mooy dëgg kon nag ñi nga am ñooy say kilifa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sa responsabilité nañ comprendre loolu ñuy encadrer sénégalais yi bu ñu dee manifester te bañ leen a traité de terroriste fii terroriste amu fii fii ay euh, force occulte amu fi fii li fi am mooy ay sénégalais yoo xam ne dañuy def seen kagul comme ni ñu koy defee parce que gis na bët ki démb. français yi bi ñuy xeex ci mbedd mi ay kagul lañ def kagul bi pour bañ ñu xàmmee la parce que bu ñu la xàmmee dañuy dem jëli la mais loolu rek la du leneen mais def sa kagul taxul nga nekk euh, ab taliban <laughs> def sa kagul taxul nga nekk ab terroriste il faut arrêter donc général Moussa Fall man rafet naa li nga wax ni actuellement il faut mu am coppite ci ni ñuy defee euh, li ñuy tuddee maintien de l'ordre ñu bàyyi di tirer ay balles réelles di taxaw di tiire ay bal même ay ay bal yoo xam ni bal bu mën a doon la mais ay bal rek ngay sox loolu kenn wut a sox ci saw askan li war a def mooy bu ñu demee ba mënta ñàkk ñu tiire ay grenade lacrymogène loolu doy na sëkk pour disperser ay nit waaye nag taxaw di tiire ay nit di ci ñàkk seen bakkan du yoon parce que France lan fa yàq yàq ñu ko Sénégal tel kenn kenn lañ fa reyul benn nit lañ fa rey ñëpp génn xeex yàq lu baree bari bari ci France taal fa ay commissariat taal fa ay ay brigade de gendarmerie taal fa ay euh, ay ay ay ay musée euh, yàqte fa ay Auchan nga gis tubaab yi di yanu ci ceeb yeeg meew yi comme ni ko sénégalais yi doon defee fii te kenn traité wu leen de terroriste danoo jàpp ni danoo mere nguur gi ak leenu rey seenu naataangoo bu dëgg bu dëkk ci bu nekk seen ñoñ léegi nag loolu la sénégalais yi def te ñu bëgg leen a traité de terroriste loolu ñi ko fi doon jéem xam nañu ci ay tappale lañ nekk fii kenn du fi terroriste fii ay sénégalais dong ñoo fi nekk bu ñu amee lu leen metti nag daa am yeneen xeeti ñaxtu yu bees yu am ci àdduna bi loolu la Sénégal def loolu la France def loolu la États-Unis def loolu la réew yëpp di def kon nag sécurité ñi koy gérer ñoo war a xoolaat seen bopp xam ne askan yi danoo soppeeku mais soppeeku taxul ñu nekk ay terroristes il faut arrêter kon lii mooy situation bi nga xam moo am ci réew mi di ñaan nag ñu wut jàmm loolu lay tëje toujours parce que jàmm moo gën ci réew mi suñ bëggee jàmm nag jàmm da nga koy wax di ko dox wax ak dox jàmm nag mooy ki nga xam ne moom la sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom bëgg boo ko nee doo fi nekk candidat ak di lal ay pexe pour du nekk candidat mooy da ngaa bëgg a yee ku bëgg jàmm ci réew mi doo taxaw ki ëpp doole actuellement ci sondage yi ki nga boo waxal mun la dañ koo bëgg xañ mu nekk candidat waaye moo leen ëpp doole nga ne du fi nekkee candidat yéen sénégalais yi ki ngeen bëgg du fi nekkee candidat loolu wu yee fitna weesuwu ko kon il faut képp koo xam da ngaa bëgg jàmm ci réew mi nga ne ñiy jiite réew mi. nañu bàyyi di di wuti pexe pour Ousmane Sonko du nekk candidat nañ bàyyi doomu jàmbur ji féexal ko dindi blocus bi nekk këram génne prisonnier prisonnier yi nga xam si ñoo nekk ci kaso bi te nekk ay jegeñaaleem ak ñu koy politigal ñu bàyyi leen ñibbi seen kër ñu bàyyi doomu jàmbur ji mu dem waajal candidature am ñu delloo ko passeport am mu wëndeelu ci diaspora bi dem waa diaspora bi teero ko tatagal ko mu ñëw fii ginnaaw bi mu defee investir am la 15 juillet bii nga xam moom la ko jàpp ca géejawaay ñu bàyyi ko mu def li mu war a def bu ñu demee nag sénégalais yi tànn mais réew mi comme ki ko doon jiite moom nee na du nekk candidat ah, alhamdulilah léegi nag moom nañ koy laaj ak mooy na élection yi jaar yoon te ñi war a bokk yépp bokk te ñi war a bokk kenn jiitu ci Ousmane Sonko parce que def fi lu tax muy bañ a bokk kon ku bëgg jàmm ki nga xam ne moom moo fi nara a eh, indi jàmm eh, eh, moo mën a dox jàmm ci réew mi nga xam ne mooy borom caq bi moom ngay wax ne ko doxal jàmm te dafa am benn affaire boo xam si dama koy tëje encore une fois depuis mars deux mille vingt et un xeex yi fi am yëpp du woon troisième mandat bi du troisième mandat bi de tappalekat nag dama leen dégg naa voilà léegi réew mi jàmm mën na fee am ndax Macky Sall nee na du nekk candidat pour une troisième fois mooy nekkul di wuti troisième mandat mais jafe-jafe yi am Sénégal depuis mars deux mille vingt et un ba léegi troisième mandat c'est vrai que constitution moo koy tere loolu moom kenn warantewu constitution bi mooy tere ci article. 27 euh, bi moo wax ni kenn mënta am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo loolu moom wax naa ko waxati ko waxati ko te dama koy fàttali tout le temps waaye xeex yi am Sénégal du loolu de xeex yi amoon Sénégal tout tourne autour de Ousmane Sonko li taxoon Sénégalais yi génn en mars 2021 c' était pas parce que dañoo xiif tappalekat yi ñoo ko doon wax naan danoo dugg ci Auchan yi parce que dañoo xiif ndaxte dañ leen a tëj ci Covid bi tappale du woon loolu la taxoon ñu génn mooy danoo dem jàpp Ousmane ci ab accusation de viol boo xam ne ay tappale la sénégalais jàppoon ne loolu la te loola effectivement moo mujj am ku mel ni man mii ak ñeneen ak ñeneen ni leen lii ay tappalee ko lal sénégalais yi taxaw xeex ne Ousmane Sonko du taxaw ci kaso bi nañ ko bàyyi kon Ousmane Sonko min jàppoon ci ay tappale euh, jiiñ siif moo indi woon xeexu mars 2021 bi boobu mooy xeex bu njëkk bi waa APR ak ñeen àndal taxaw ne li fi amoon du fi amaat même ki ko jiite président la république woon li fi amoon du amaat ñu def lañ defoon la amoon amaat mooy en euh, juin 2023 le premier et le 2 juin dëkk bi tàkkaat loolu tax mu tàkkaat mooy danoo dem àttewaat Ousmane Sonko ci dossier Adji Sarr tappale bi donc c'est le même dossier bi andi woon fitna en mars 2021 moo andiwaat fitna en juin 2023 ñu ñëw daan ko daan boo xam ne àndul ak lan ko doon topp ñu topp ko ñaari mbir gis nga ñaari mbir yuñ ko tàpp topp yëpp dara du ci dëgg ñu daal di tege nee lan ko doon topp dem indi taqal ko loo xam ne topp ñu ko woon nit ñi génnaat xeex kon nag liy indi jàmm ci ci dëkk bi du parce que Macky Sall nee na du def troisième mandat déedéet liy indi jàmm mooy parce que Macky Sall def trois ni du def troisième mandat moom c'est normal mooy li ma doon wax keroog ni loo amul droit. soo demee ba ca biir ñin ñi naan la nga ne da koy def mais am aw ma ci droit euh, te amoo droit nga ne dama koy def ñin la amoon droit di la teg pression nga dem ba ca biir xam ne amoo ci droit nga ne léegi bàyyi naa defatuma ko amul lu la ciy félicité parce que da def li nga moom mooy yoon. maintenant nag li mën a yee fitna ci réew mi ci képp koo xam ne doo naafiq te xam nga ni réew miy doxe mooy jéem a jàpp Ousmane Sonko ci lii nga xam ne ñëpp xam nañ ne ay tappale moo ko lal. wala tere Ousmane Sonko mu nekk candidat en 2024 ñaar yi moo mën a yee fitna fii ci Sénégal kon képp ku bëgg jàmm ci réew mi da nga naan ñi yore réew mi nan dox jàmm te dox jàmm actuellement ci réew mi mooy bañ a wuti pexe pour di jàpp Ousmane Sonko ci euh, décision bi nga xam ñëpp xam nañ ni teguwul ci dëgg beneen bi mooy Euh, jéem a xañ Ousmane Sonko mu nekk candidat en deux mille vingt quatre ñaar yi buñ ko moytoo jàmm am ci réew mi bu ñu demee deux mille vingt quatre sénégalais yi fal ku mu bëgg fal parce que ñoo moom seenum réew ku bëgg a nekk candidat nekk candidat bu ñu demee sénégalais yi xool ñu nekk candidat ñu tànn kenn ñu bëgg a tànn lii laa am ci lu ma leen doon dollil tey di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.